ñu am mbégte nag dalal ci waxtaan wi tey euh, professeur Isma Diagne di jàngalekat jiite itam lycée Les Majors bu Mbaaw euh, sëñ bi Diagne ñu ngi lay nuyu am mbégte lool dalal la ci Demb ak tey waaw soxna si maa ngi lay fay madame di nuyu aussi say auditeurs ak auditrice di wax ni am naa mbégte lool wax fa dëgg yàlla waxtaan ak yow tëngëj. Mm-hmm. bu démb ak bu tey. Mm-hmm. di rafetlu vraiment invitation bi di ñaan yàlla aussi lépp lu ñu fi wax rek mu doon njariñ lu jëm ci askan wi. Mm-hmm. alors euh, professeur Diagne ni ma ko waxee Tëngéej gox la bu am taarix euh, lan nga ñu mën a wax tey ci cosaanal Tëngéej. waaw merci beaucoup madame kan xam nga comme on a l'habitude de le dire mooy que ni quand on parle de Rufisque on parle de la vieille ville. Mm-hmm. la vieille ville veut dire. wolof cest à <laughs> la vieille ville maanaam dëkkuwaay bu bu yàgg. Euh, booy xool biographie bu bu bu bu yi ko yi ko yi ko mos a jiite yëpp. xam ni c'est des gens yoo yoo xamante ni ils sont dans les dans les anciennes communes Tëngéej taarixam bon à partir de mille quatre cent quarante quatre ce qu'on appelle les caravelles portugaises bu prince Henri le navigateur ñoom ñoo doon ñëw île du Cap-Vert ci seen yoon ñu gis boobu temps yooyu île du Cap-Vert sax tuddul woon île du Cap-Vert mu ngi tuddoon Berzegui hmm. mais en bordure des baies creusées ñu gis benn village benn benn benn benn bois maanaam benn guy bu hmm. mag ci bordure yi mu sampu mais bi ñu accosté ñëw ba foofu ñu gis ni laajte ñu leen village bi mu ngi tudd village de Mam Kumba Lamba donc ci benn sol bu marécage la nekkoon la doonoon donc ñu sillonné ko par benn par les bras d'une rivière à eau fraîche mooy la mooy euh, le fleuve moo tax ñu tuddee woon euh, ndox boobu Rio Fresco. Hmm. voilà loolu moo indi turu Rufisque bi après bi colon yi ñëwee. d'accord alors tey ci askan wi nga xam ne ñoom ñoo composé Rufisque loo ñu ci mën a wax ndax euh, dëkk la boo xam ne dalal na ñu bari ni yeneen i gox euh, nit ñi jóge woon nañu fu nekk ñëw dëkk si fa tey dëkkuwaay bi ak ñi ko dëkkee loo ñu ci mën a xamal. waaw xam nga balaa loolu xam nga au seizième siècle. Mhm. village bi ay pêcheurs ñoo fa nekkoon village boobu ma lay wax. ci la jëlee turu Rufisque c'est déjà au seizième siècle. Mhm. bon ñuy dem ba après. mu jël turu Rufisque ñu classé ko en même temps que Saint-Louis Dakar ak Gorée parmi les centres rayonnants de la côte occidentale d'Afrique bon fi ville bi ñu ngi ko érigé en commune en 1880 le 12 juin 1880 bien avant Dakar donc yàgg na dalal ay doomi aadama yàgg na dalal aussi ay boromi xam-xam. Mm-hmm. bu ñuy wax ci taarixu dëkk boobu dañuy wax xam-xam ak culture. Hmm, waaw dëkk dëkk cosaan la surtout. waaw donc euh, lu ne am na fa lu ne xew na fa te li ma lay wax ni c'est bien avant les indépendances. c'est parce que ci jamonoy colon yi kon. Oh, bien avant waaw. Hmm. ci jamonoy colon yi. parce que yooyu xew-xew yan la woon li ngay wax ne lu ne xew na fa. waaw par exemple boo jëlee après la signature du décret. Hmm. du 12 juin 1880. bi nga xamante ne ni moom moo érigé Rufisque en commune mu doon une commune la troisième commune française mm-hmm. de, le, euh, du Sénégal boo xoolee euh, jamono yooyu tubaab yi seen les plus grandes activités mm-hmm. ñu ngi ko daan defee Tëngéej mm-hmm. du coup dañu date woon Tëngéej le grand port un très grand port ce que l'on appelait le port de Rufisque port boo xamante ne nii fa lañ daan euh, jëlee gerte gi bu ñu ko mësaan a béyee ci suuf si jël gerte gi transporté ko war ko yóbbu en Europe hmm. waaw port boobu daan na jamono yooyu presque daan nañ béy lu toll ci deux vingt et un mille tonnes d'arachide par année daan nañ ko génne biir Tëngéej. Hmm. di ko yóbbu jaarale ko ci port bi di ko yóbbu dans l'Hexagone hmm. waaw d'accord ci wàllu aada ak cosaan euh, ah. tey Tëngéej euh, patrimoine am bu ñu ko doon natt lan lay joxe professeur Diagne. waaw xam nga boo xoolee am euh, boo xoolee dans la culture boo xoolee ku mel ni Ousmane Sembène c'est un écrivain de renommée internationale qui a beaucoup écrit wax na lu bari bari aussi ci histoire sénégalaise Séné ci culture sénégalaise du moins. ku mel ni Abdoulaye Sadji c'était aussi un grand homme c'était un écrivain mais aussi un enseignant de formation jàngal nañu bari xam leen xamal na aussi lu bari bari bari ci wàllu aada ak cosaanu nit ku ñuul ci ci ci àdduna donc ñooñu c'est des hommes de culture ku mel ni Ousmane soose Ousmane Socé Diop qui a encore après maire donc te nga yàgg na jur ay ay ay ndaanaan ci wàllu aada ak cosaan waaw. Mhm. alors euh, tey euh, Tëngéej euh, boo ñu doon wax tolluwaayam ndax démb ak tey la ñu wax lan lañu ñu ci mën a jàpp. tolluwaayam ci ban fànn. ñu tàmbale ko ci wàllum histoire ak culture ki noonu itam wàllum xam-xam gannaaw jàngalekat nga. waaw xam nga Tëngéej est classé patrimoine culturel de de de l'UNESCO de l'humanité c'est c'est un patrimoine que toutes les cultures du monde. ñoo ko bokk. bon parce que dayoo dëkk bi moo toll noonu cosaanu dëkk bi moo toll taarixu dëkk bi moo toll noonu. donc soo demee dans les archives boo demee même dans les institutions internationales mm. tu vas trouver dans la rubrique culture mm. et histoire le nom de parce que dafa bokk ci taarix boo xamante ne askan bi yëpp adduna bi yëpp dan koo bokk. kon tey boobu taxawaay la ci wàllu taarix. Hmm. waaw d'accord ci wàllu culture tey Tëngéej est-ce que mi ngi des di nekk place ba mu nekkoon wala ndax romb na ko ndax dëkku cosaan la euh, ku wax euh, lébu wax euh, culture wax aada wax cosaan mm-hmm. tey mm-hmm. Tëngéej est-ce que ba tey mi ngi wéy di dund culturellement ndax dañuy wax ne sax seen ville de culture et d'histoire est-ce que mi ngi wéy di dundu ba tey ci ci fànn boobu waaw xam nga ci wàllu culture mën nañu wax ni am na loo xamante ni bon ba ba ba tëngee ji doon tëngee ju démb ga. Mhm. bu ñu waxantee dëgg rek culture nañ ko daan dundee ak léegi am na différence bu mag ndax xam nga ñun mhm. ñun ay lébu li ñu xam mooy la posture matriarcale kooku aada lébu la c'est les neveux dañuy bokk ci héritage yu ndijaay nit ci doom di bokkee. Mhm. loolu mooy la posture matriarcale mm. kooku histoire lébu la maanaam së boo musaana doon xale lu góor màgg ba am soxna ba bàyyi bedd la nga dem si sa kërug bopp danga daan jël ci say doom yi rakk mbaa say doom yi mag kenn wala ñaar xëcc leen indi leen seen biir kër sa biir kër mm. moo tax euh, jarbaat danaan daan donn di jaayam ci suñu taarix ñun lébu yi te nag bokkoo ci Euh, loolu bokk ci ah, ci ci kiwam ci ci ci seen i seen valeur maintenant ci wàllu culture bu ñu ci demee euh, tënkee gu njëkk ga dégg naa mag ñi ndax liñ naan nopp moom mag boromam dégg naa mag yi daan wax ne nit ñi dëgg bu ñu mësaan bëgg xool li xew dañ daan ñëw tëngéej dakaaru sax bu ñu mësaan bëgg xam li xew maanaam li toll li toll ci jamono ci wàllu solo ci wàllu way ci wàllu fecc dañ daan ñëw tëngéej mhm. waaw kon tëngéej taarixam ci culture boo xoolee Sénégal empreinte la ci moom la ci am bon ci façon ñu fecc yu bari tëngéej culturellement ñoom ñoo ko fi ñoom euh, fi la jugee euh, boobu tey jii boo xoolee yàlla na yàlla dolli ko fan wu gudd. Mhm. tey la plus grande cantatrice ci Sénégal tëngeej la fekk baax muy Adja Xaar Mbaye Madiaga mhm. kon culture ak tëngeej maanaam benn la. Mhm. waaw alors est-ce que tey culture boobu xale yi euh, ñu ngi leen ci nàmpatal yow da nga jiite école da ngay jàngale yor nga ay élèves est-ce que tey ñu ngi imprégné wu si tëngeej aspect culturel boobu nga xam ne euh, daanaka mun nañu ne Sénégal bokk na ci gox yi ko fi ëppale bu dul moo ko fi ëppale. waaw pour dire vrai tel n'est pas waaw bu ñu waxante dëgg rek y a une régression de l'information culturelle auprès surtout ci biir xale yi ndax gis nga ay nit boo leen bëggee nampatal ci li ñu doon ñu bëri bëgg war u ëllëg war a incarner valeurs yi ak vertu yi nga xamante ni moom lañ nambat nanta nampatalee seeni baay ak seeni yaay dañ leen di wax cosaan ñu démb ñu def ko ñu ñu ñu sol leen ko fi mu ne nii mais malheureusement xam nga léegi avec la mondialisation c'est-à-dire euh, l'histoire même de de de l'autre a pris le dessus sur notre propre histoire. Hmm. moo tax souvent di nga juddoo ci dëkk. yaroo fa màggee fa xam taarixu dëkk bi mais doo am possibilité xamle xamle ko te école moom mënoon nekk véritablement yoon bi nga xamante ne ci lañ mënoon a jaar pour xale yépp am accès ci histoire dëkk bi. Hmm. donc loolu aussi c'est une chose qu'il faudra revoir sur le contenu dans l'enseignement tey jii bu ma la waxee ni la fameuse lettre de Valdiodio Ndiaye devant euh, le général de Gaulle à la place de l'indépendance mm -hmm. a été écrite ici dans la salle de délibération de la mairie d'Rufisque ah oui préparé mm et loolu il y a beaucoup de Rufisquois qui ne sont même pas au courant de cela mhm. n'est-ce pas mhm. boobu Mbaye Jacques moo leen préparé loon sax déjà campement. Hmm. c' est pour cela que moom mu nekkoon après le président des porteurs de pancarte donc xam nga Tëngéej maanaam boo xoolee constitution no Tëngéej constitution wu Sénégal. Hmm. lu ci bari bari bari bari fii lañ ko démarré fii lañ ko préparé. la xewee dinañ ñëw ci histoire politique bi ndax daf ñuy mm. may après ñu jàll ci ci maire yi fa jot a jaar. ak li mm. ngeen jàpp ci ñoom. waaye mm-hmm. ñu des ba tey ci tolluwaayu Tëngéej. Euh, tey mm-hmm. à part euh, culture bi ak euh, mm-hmm. wàllum éducation bi tey dëkkuwaay bi Tëngéej est-ce que nekk na gox boo xam ni suqaliku na ba xëy na ñi fa nekk ñëpp di mën a gis seen bopp ci ci yi ni muy doxee. waaw xam nga suqaliku bi dañ koy jël ci deux fa ci ñaari tey jii boo xoolee suxal yi dafa am ce qu'on appelle suxali sur plan financier maanaam ndax dëkk bi développé na économique du moins ndax dëkk bi développé na bon su ma waxee ni dëgg fa mu démarré. Hmm. bu doon noonu la continuer tey weesu nañ fii hmm. ndax yàlla dëgg rek la bëgg. Hmm. Euh, bu ñu waxantee dëgg rek tëngéej na mu tàmbalee woon bu doon noonu la continuer heure bi day fekk mu doon première ville ci ci Sénégal. te ba léegi yenn problème yi bi ngi fa salubrité et euh, tout. waaw les salubrité mm-hmm. xam nga xam nga xam nga ñun notre chance. par rapport aux autres villes ñun Tëngéej bi ñu koy defee commune en mille huit cent quatre-vingt déjà dañ ko de érigé woon en commune defaral ko plan mu am plan d'assainissement plan de logement et tout. Mm. benn voie moo fa amoon mooy euh, la euh, route nationale ak la voie ferroviaire. Mm. mais malheureusement bi ñu demee après ba extension yenn yi am avec l'avancée de la mer ñu jëlee ñenn ñi ndëggu indi leen ci yeneen gox yi ñi ñu ñëw dàngu après dëkk bi di màgg di màgg di dem ba ci euh, beneen niveau am na jeexital yu bare bare bare surtout l'insalubrité l'insalubrité euh, mbir la moo nga xamante ne ni dafa yàgg dekk tëngéej ndax tëngéej dafa yàgg porté ay ngandi entreprise boo xoolee Valda par exemple Valda Afrique mm -hmm. et mise en place à Rufisque en 1942 xam nga loolu du tey. waaw yàgg na. voilà ñu ñëw ensuite la Sococim. Mhm. bi muy démarré avec le groupe Vicat ils avaient trois fours en 1948 mhm. donc c'est des industries il y avait la Bata qui était une tannerie. taneur yi buñ koy wax xam ni mooy nuy wuli wuli der. Hmm. donc loolu salubi insalubrité de indi. ñu nekkoon ko ak côté de la mer mais il fallait ñu trouver benn réseau d' assainissement. Hmm. boo xamante ne nii day connecté wu yóbbu ko directement ci ci ci géej gi. donc y' a beaucoup de problématiques yoo xamante ne tey ñoo ñoo ñu causé tey situation bi ñu nekk. Hmm. waaw xaj na kenn ku ci nekk ba nga ca tolloo am na loo ca def. mais de loolu bu ñu duggee dans le vif du sujet dinañ ci mën a waxtaan bu baax. waaw euh, Tëngéej en ñi ngi koy taxé gox boo xam ne bu salte la boo fay jàll di génn Sénégal wax dëgg yàlla des nga gis image yoo xam ne euh, xëy na méngoowul ak dayoo gox bi ndax Tëngéej ma nga ba bitim réew ni nga ko waxee. Euh, mhm. ñëw ci maire yi nga xam ne ñoo fa jot a jaar ku ne ba nga fa jaaree am na loo fa def. Mhm. nga dellusiwaat ci étape yooyu Isma jañ waaw xam nga bon bu ñu waxee pour. maire yi. ñu mhm. fa jot jaar mille ba mille neuf cent quatre Alla Gaye Thiam moom moo nekkoon maire ville de Rufisque. Mhm. bon de mille neuf cent quatre ba mille neuf cent dix Antoine Makou nekk aussi maire de la ville donc bi ñëwee mille neuf cent onze ba mille neuf cent dix neuf dix neuf après c'est Gabriel Carpo maintenant bi ñu ñëwee nag ba mille neuf cent dix neuf ba mille neuf cent vingt trois Ngalani Diouf. moom moo nekk maire de la ville. donc kooku faaw ñu taxaw ci moom. un mm-hmm. parce que Ngalanu dafa nekk moom la ñuy tuddee d' abord le stade. Mm-hmm. communal du de de de de ville. xam nga Ngalanu il est né à Saint-Louis. Mm. donc c' est un citoyen français. ah. waaw en mille neuf cent en cent soixante quinze. mais il est décédé en mille huit cent en mille neuf cent donc euh, c'était un homme politique sénégalais parlementaire la woon à la chambre des députés française mm. mais boo xoolee moom yàlla dafa dogal mu def lu bare bare bare biir Tëngéej. lan la ko indi Tëngéej. mission lañ ko fay indi dañ ko fa yónni woon mission la fa ñëwoon. Mm. parce que boobu mu ngi nekkoon dans euh, c'était un député. Mm. indi ko indi ko Tëngéej parce que boobu les Français avaient senti que nii il leur fallait quelqu'un euh, boo xamante ni citoyen euh, français la mm. ñu envoyé ko à Rufisque mu ñëw fa mais c'était un enseignant aussi maintenant bi ñu bi mu euh, ci famille yi mu bokk nag famille famille yaay ji mm. yaay ji ak ñooñu yaay famille yaay ji côté séeréer la mm. moo tax boo déggee ñu naan lébu yi ak ak séeréer les lébu les Dakar waa c'est des séeréer c'est presque des séeréer quoi voilà donc Ngalanu aussi def na liggéey bu am solo biir Rufisque parce que bi mu ñëwee eh, dafa changé lu bari changé na doxalin yi administrativement parce que nee leen léegi c'est euh, waa Tëngéej ku juddoo Tëngéej mille cent euh, dix-neuf mu ne fii ku fi juddoo citoyen français ga mm-hmm. donc il y a des Rufisquois qui sont il faudra les former et leur confier l'administration de la ville Donc c'est ci qui a été à l'origine de la, euh, euh localiser l'administration. kon mënees naa jàpp ne moom jamono bi fay ñëw te ngeej amul woon doom ju mën a tee gox ba ndax li ñu fi lim ñu jiitu ko ñu ay tubaab lañ. Eh, waaw amu woon. boobu parce que xam nga lu tax. Mm. parce que boobu Tëngéej dafa nekkagul woon commune de plein exercice. nekkagul woon commune boo xamante ne nii euh, érigé nañ ko en commune mais ñi ka dañ ko dañ ko tànn. Hmm. parce que li mu doon apporter tubaab yi la sur le plan financier. Hmm. sur le plan économique. loolu la woon loolu moo taxoon ñu érigé woon ko en commune. Hmm. mais commune ku xam commune xam ni ka ko war a jiitu ña fa war a jiitu du lu ñuy nommer mais ñu ñuy élire la. mais ngaloon nag bi mu ñëwee def ne l' centrale doit être gérée par des fils du de Rufisque parce que ñoom ils sont considérés maintenant comme des Français. boobu moom mu ngi fa nekk am mille neuf cent euh, Ngalandou Diouf la fa nekk ah ba mille mu fa jógee ya Ibra Seck qui est né à Rufisque mm-hmm. ba mille neuf cent trente deux ensuite Ousmane Socé sànq wax naa la ko. Mm-hmm. mille neuf cent trente ah, neuf cent quarante deux ensuite mille neuf cent quarante cinq à soixante Maurice Gueye moo fa nekk mm. Maurice Gueye nag bu ñuy wax tey ji taarixu Tëngéej ku xam tëngee xam ni colonne vertébrale am mooy le canal à ciel ouvert. Mhm. canal boobu bi dëkk bi commencé màgg Maurice Gueye nekk maire Tëngéej moom moom moment boobu la entamé le travaux de du canal. Mhm. à ciel ouvert le grand canal. mu wax fa dëgg yàlla mu def ci liggéey bu am solo. Mhm. ba mu ñu Maurice Gueye ba mu ñëwee 1947 ba 1960 bi ñuy jël indépendance. moom moo nekk maire Tëngéej mais Ousmane Socé xam nga dafa jiitu woon. mais après Ousmane Socé ñëwaat. d'accord 1960 ba 1964 nekkaat moom moo nekkaat maire ville bu Rufisque. Hmm. waaw avant ñuy jël nag Rufisque 1964 ba 1987. Hmm. Rufisque dañ ko def sous délégation ñu rattaché ko la commune de Grand Dakar. ndax lan. wu la euh, mooy communauté urbaine bo voilà moment boobu parce que boobu c'est pour des raisons purement stratégiques et techniques moo taxoon ñu ne dañ jël Rufisque ñu rattaché ko maintenant à la communauté urbaine de Dakar mu nekk une commune de Dakar bu ñu jugee foofu 1987 ba 2002 si le grand maître Mbaye Jacques Diop ñëwee mm. aujourd'hui il a été désigné maire honoraire de la ville de Rufisque mm. c'était Mbaye Jacques mën naa wax ni euh, yàlla na ko yàlla dolli yërmande dolli ko leer mm. c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué surtout surtout à l'éducation des Rufisquois mm. euh, li mu def ci Tëngéej il avait une vision futuriste bi mu ñëwee dafa xool xam ni man mii tey ji maire bii ma mu nekk une des plus grandes villes de ce pays tey il faut ma nekk un homme futuriste entamer de grands chantiers dans Rufisque xam nga nit ñi dañuy wax tey ñenn coin yi di wax pavage ñii di wax euh, ay ay ay tali hmm. mais gis nga l'assainissement l'assainissement de Rufisque et de, de certains quartiers de Rufisque c'est grâce à Baye Jean Diop c'est quelqu'un qui a contribué à l'essor de Rufisque au développement de Rufisque surtout les plans nag ay ay ay ay CEM ibi ay école élémentaire fexe ba dans les nouveaux quartiers de Rufisque ñu am accès à l'éducation dans les quartiers mu euh, euh, def fa ay ay ay euh, ay école parce que tey jii kuy wax dëgg rek xam ni boo bëggee askan jariñu d'abord da ngay dañuy jàng. Mm-hmm. moo tax le niveau de d'alphabétisation de scolarisation du moins est l'un des meilleurs niveaux dans tout le Sénégal. et ce mérite waaw vraiment euh, revient au au au au maire Maître Mbaye Jacques yàlla na ko yàlla dolli leer. amiin dolli ko yërmande. ginnaaw Mbaye Jacques Diop kan moo jiite Tëngéej. bon après Mbaye Jacques Diop. y a le euh, l'autre Ndiawar Touré en 2002. waaw 2002 Ndiawar Touré moo ñëw ba 2009. Ndiawar Touré est issu d'une famille euh, boo xamante ne ni son père c'est c'est le doyen Cheikh Touré jàngalekatu alxuraat bu mag la woon yàlla na ko yàlla dolli leer Ndiawar aussi doon nit ku baax bu contribuer woon surtout. ci defaral étudiants wu Tëngéej yi dimbali leen ay bourses je me rappelle avec l'AER l'amicale des élèves et étudiants Rufisquois Njawar mus euh, moo leen daan wutal un logement au point E hmm. ñu koy fay pour euh, étudiants wu Tëngéej yi mën fa nekk loger foofu bañ di def le déplacement n'est-ce pas surtout période examen bu mosaan jot hmm. nga xamante les gens n'auront plus besoin de se déplacer voilà donc euh, vraiment moom aussi il a rendu un très grand service aux étudiants et élèves rufisquois hmm. ensuite pavage wu tali yi tali Nimzatt bi tali Fass foofu yooyu yëpp vraiment def na fa liggéey yu am solo et l'insertion aussi des jeunes diplômés hmm. ne leen nag il faut que ngeen jéem a xool yéen ñi fi dëkk nan ngeen di def ba créer vos propres entreprises hmm. qui seront demain mën a jàppale gox yi ak gox goxaat yi donc lui aussi c' est quelqu'un boo xamante ni vraiment ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla dolli defal jàmm. Hmm. voilà euh, waaw mi nga xam ne génn na àdduna gis nañu itam ba mu génnee àdduna euh, yëf yu meloon mu wone woon ni tëngee taxoon nañu ci moom lool. ginnaaw moom waaw xam nga tëngee dañu am taarixu. moom moom Badara Mamaya Sène moo fi ñëwoon. Hmm. Badara Mamaya Sène c' est c' est un la fi nekk ba 2014. Hmm. moom aussi mu nekk ku Nord. parce que xam nga en quatre-vingt-seize avec l'acte deux de la décentralisation dañu scinder les communes les villes en trois communes la ville de Rufisque muy Rufisque Est Rufisque Nord ak Rufisque Ouest donc Badara mais mais là on parle des villes des maires de ville mm-hmm. donc Badara Mamaya Sène moom il est de Rufisque Nord Ndiaw Touré aussi Rufisque Nord la bokkoon mais moo gagné Rufisque ville aussi mm-hmm. donc Mamaya aussi bi mu ñëwee Badara Mamaya seen yàlla na ko yàlla dolli leer moom aussi bi mu ñëwee en 2002 ba 2004 2009 du moins ba 2014 vraiment def na liggéey bu am solo c'est-à-dire c'était quelqu'un qui incitait les gens au travail moom xam nga c'est un sportif. Mhm. de nature et quand on dit sportif c'est souvent des gens qui ne badinent pas sur des instructions c'est un arbitre un arbitre il est là pour pour pour pour pour, pour juger pour pour pour arbitrer. Donc, si tu fais un bon boulot, il le dit à la face du monde. Si tu fais un boulot moyen aussi, bu faites aussi un boulot lamentable, il le dit. C'est pour cela certains le taxer de quelqu'un qui est très, très, très euh, difficile. Mais, mais je trouve que ce n'était pas le cas. C'était quelqu'un qui voulait coûte que coûte avoir de bons résultats. vraiment moom aussi yàlla na ko yàlla dolli defal jàmm. Mm-hmm. mu nekk aussi une bu doomu Tëngéej. parce qu'il a su représenter euh, le Sénégal pratiquement dans tout tous les sphères euh, sportives. Mm-hmm. Euh, surtout du foot euh, en particulier ci àdduna. donc mu nekk un véritable fils de Rufisque mm-hmm. yàgg def lu baax Tëngéej aussi Tëngéej jaraloon ko aussi lu nekk. ñu ñooy ñaanal yàlla aussi yàlla na ko yàlla defal jàmm fa mu nekk. defal ko yërmande dolli ko yërmande. bu mu fa jugee nag mhm. en 2014 si la la l' actuel maire ñëw Daouda Niang moom aussi c' est un enseignant de formation. mu nekkoon parmi les cadres du du parti démocratique sénégalais donc nekk aussi un digne fils de Rufisque euh, yàlla bi ko yàlla texee joxe bopp dëkk bi aussi euh, limu mu ci mën mu koy def. bon xam nga léegi comme on la ville yeneen yi c'est-à-dire dañuy am la ville de Rufisque mm. la ville de Rufisque en tant que telle moom va toujours rester la ville de Rufisque mm. mais c'est les maires des communes d'arrondissement qui mènent les politiques de développement dans leur propre commune mais aussi en collaboration avec euh, le maire de la ville voilà parce que y a des compétences qui ne sont pas encore transférées mm. euh, au niveau des mairies des communes d'arrondissement mm-hmm. voilà alors ñii nga fi lim ñëpp mooy ñi jot a jiite Tëngéej. ñenn ñi mm-hmm. ñu ngi fi ba tey ñenn ñi yàlla jël na leen. Euh, mm-hmm. boo tax defee taxaw seetlu si seen ay réalisation seen ay liggéey lan nga jàpp ne moo manqué ci li ñu def ñoom ñëpp ba tax tey Tëngéej xëy na dépassé wul fi mu toll nii. waaw xam nga moom laa la nee naa la gis nga Maurice Guèye. Mm-hmm. ba mu ñëwee defar canal bi. canal à ciel ouvert bi canal bi moom mooy nekk la colonne vertébrale de Rufisque. boo xoolee. mu nga commencé c'est ca kaw wàcc ba ca géej ga. Hmm. ñëwee ba hôpital Youssou Mbargane sa gannaaw hôpital Youssou Mbargane la commencé canal ba jamono yooyu ba ñëw ba ba ca géej kon xam nga kooku amoon na une vision futuriste hmm. ñu dëkkoon ca kaw canal ba yëpp mu yóbbu leen ci mooy mooy les nouveaux quartiers après waa ay ci lañ créé ay Nimzat ay Ndargu Ndaw Faas ñooñu foofu la ñëw waa Gendal ñoo fa dëkkoon foofu canal boobu. ñoom ñoo ñëw Nimzaat Fass et ainsi de suite. ñenn waaw ñenn ñi porox ndoolu côté Dangu HLM c' souvent des fonctionnaire yi amoon voilà ñoo xamante nii waa SN HLM joxoon nañ leen fa ay ay ay ay logement mm-hmm. maintenant bi ñu ñëwee ba ñun suñu ñu fekkee ñun dëgg-dëgg dañuy taxaw tuuti ci bet Mbaye Jacques Diop. Mm-hmm. ndax euh, Maître Mbaye Jacques Diop surtout surtout l' appropriation des terres. Mm-hmm. dafa nekkoon son principal combat mu ne les terres au Rufisque d' abord si la tracé. Euh, def dañu joxe na ay dëkkuwaay yu bari. waaw boo xoolee vingt mille loge vingt mille euh, parcelles. Hmm. boo xoolee Série bi c'est Mbaye Jacques Rufisque 2 bi c'est Mbaye Jacques wax fa dëgg yàlla mais jamono yooyu xam nga comme on di souvent yàq dafa gën a gaaw defar. Hmm. tey jii su ma la waxee nii ñi ci bénéficier wu ñu bëri seen sont pas des Rufisquois quoi. Hmm. parce que boobu dangay dem trésor directement frais de bornage cinquante mille nga daan fay mais les gens ñi fi nekkoon ñenn ñi ñi nga xamante ne ils étaient contre le maire disaient que Mbaye Jacques est en panne de moyens moment boobu aussi dafa tombé woon nag moom mu amoon deux mois yoo xamante ni dafa amoon des problèmes de salaire. ci jamono yi ñu ne Majak est en panne de moyens moo tax mu bëgg lekk seen xaalis mhm. mais loolu c'est pas vrai ce n'est pas du tout vrai mhm. mais d'autres personnes sont venues ñi jugee ay Pikine ñi jugee ay Thiès ñi jugee feneen ñi jugee feneen ñëw jël si suuf soosu parce que trésor ngay fay dem fay ji li lay pese ni wane rek mooy certificat de domicile ngay indi ñu montré ni tënkee nga nekk nga dëkk. nga ñëw nga dem trésor fay cinquante mille on t'attribue une parcelle non non frais de bornage bi c'est cinq c'était cinquante mille francs mm. xamante ne nii j'en connais certains qui qui ne sont pas de Rufisque mhm. honnêtement mais ay ay plus de trente parcelles lañ si am mais bi ñu paree après dañ koy dañ koy dañu dañu xaar ba foofu gën a am valeur tey jii boo amul quinze millions foofu mën loo fa am parcelle donc kooku amoon na une vision futuriste pour aider les Rufisques quoi à trouver de terres pour eux et leurs enfants vraiment loolu dafa doon acte bu may saluer ci maître Mbaye Jacques Diop. Mhm. daf ne woon Tëngéej d'abord suufu Tëngéej doomi Tëngéej ba noppi. tey jii mu ñun ñii suñuy jamono yooyu suñuy waajur ak du ñu yaaxul woon seen xel tey ñun du ñu jéggaani di dem feneen di fi wuti kër. dañuy ñëw fekk suñuy kër noppi suñuy terrain noppi dañuy ñëw rek daal di tabax. waaw léegi euh, euh, ci wàllu liggéey laa wax lan moo euh, soqe ndax gouvernement moo joxul ak Tëngéej wala ndax maire yi ñoo xëy na lajj ci yenn fànn yi ndax niñ ko waxee sànq Tëngéej ak tur wi tey méngoowul ak fi dëkk bi tollu quand ci wàllu développement. waaw xam nga tey jii boo xoolee la plus grande cimenterie d'abord du de l'Afrique mm. de l'Ouest se trouve à Rufisque c'est la Sococim mm. xam nga euh, àdduna lépp lu koy doxal organisation la mm. il faut savoir bien s'organiser tey jii rien que la patente de la Sococim pourrait prendre en charge toutes toutes les dépenses de la ville de Rufisque parce que la Sococim xam nga au delà même de ce que Sokocim ce que Sokocim représente dafa am ce que l'on appelle dans le registre des Nations Unies les villes à risque de catastrophe te Tëngéej def ci bokk c'est deux mille milliards par année deux mille milliards je te dis bien deux mille milliards de dollars par année les villes yi bokk ci registre boobu sont deux cent trente villes la ñu doon te Tëngéej ci la bokk mooy les villes à risque de catastrophe parce que y a une cimenterie tey jii tey jii Sococim bi bu néew jékki-jékkoon fuuram yi ne béy te tënkee day kay rasé à zéro. Mhm. jamono yi sax ñu ngi doon ñaxtu ci fuur beneen bu ñu bëgg def. y a un sixième four qu'ils ont mhm. tey jii boo xoolee seen calcérin yi ak seen mine yi buy tugg buy koy toj euh, beneen affaire la ñuy wax donc tout ça c'est c'est c'est une problématique d'or d'organisation. Mhm. maintenant nag euh, Tëngéej waroon na weesu fii. malgré Sococim a employé beaucoup de Rufisquois tout comme Valda mais li des dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy c'est que c'est leur apport en vers la ville c'est ça souvent qui pose problème parce que l'État yi fi jotoon jaar peut-être le président Macky Sall est en train de rectifier cela ñoom li ñu daan def mooy c'est-à-dire que c'est euh, euh comment dirais-je les les li li li Sococim war a fay ville bi ya a ce qu'on appelle la patente fiscale. Mm-hmm. la patente communale ñoom dafa am ar lu ñu ci daal téq sax di ko jël di ko yóbbu foofu maintenant léegi tout ça est encore dello si nañ ko Tëngéej moo tax Tëngéej la ville de Rufisque mooy le deuxième plus gros budget du Sénégal à part Dakar waaw Pikine ñi ngay dégg ki géej waay yëpp Tëngéej leen ëpp budget voilà Tëngéej leen ëpp budget tey loolu yàgg na jamonoy Mbaye Jacques la ba léegi mm. waaw d' accord alors Tëngéej moo leen ëpp budget waaye Tëngéej itam bokk na ci gox yi ëpp solo euh, ci wàllu politique mun nañ ko méngale ak grenier électoral euh, tey ñu nekk ci waxu découpage wala redécoupage administratif. Euh, mmh. découpage bi Isma Diagne professeur noo ko jàngatee ak ban gis-gis nga ci am ndax politique moo ko lal wala wàllu koom-koom mën na caa am suqaliku tuuti ngir Tëngéej sa gox. waaw soxna si xam nga je vais je très clair mm. parce que les gens parlent de découpage. Mm. mais man je vais aller beaucoup plus loin. il y a même pas eu de découpage. Ah, en deux mille vingt et un il y a même pas eu de découpage il y a une correction. ah d'une incohérence territoriale. maanaam bu am maanaam dafa amoon une incohérence territoriale. bu l'ancien régime d'Abdoulaye Wade pour ne pas le citer mmh. imposé woon la colle cette collectivité là en 2011 n'est-ce pas léegi nag le président Macky Sall ñëw en 2021 corriger cette injustice la lan nga tuddee injustice ak incohérence incohérence territoriale bi mooy que ni man Sangalkam a toujours été un arrondissement bi mu nekkee collectivité xam nga Sangalkam. Mm. dafa bokkoon ci commune bu Rufisque la bokkoon ville de Rufisque la bokkoon. ñu def ko communauté rurale. Hmm. n'est-ce pas. Hmm. c'est le l'ancien ñi ki fa njëkk a nekk euh, euh, officier état civil commune bu Rufisque moom moo ko fa moo ko fa yóbbu. Hmm. ville de Rufisque moo ko fa yóbbu. ñu doxal tuuti dëkk boobu di màgg zone boobu di màgg ñu créé d'autres commune jël Sangalkam def ko un arrondissement. c'est en 2011 en 2011 que Ablaye Wade jël arrondissement boobu jox ko Bambilor. jël les parcelles les les terres de Sangalkam cest dire Kër Daouda Sarr Kër Ndiaye Lo euh, Kunun Kunun Ngalap Kër Baba Guissé toutes ces zones la faisaient partie de la communauté rurale de Sangalkam hmm. Abdoulaye Wade jël loolu yóbbu ko rattaché ko à Bambilor c'est-à-dire quand tu quittes Kër Daouda Sarr il faut d'abord passer par Sangalkam pour hmm. ensuite accéder à Bambilor c'est une incohérence territoriale e tout juste, c'est pour anéantir peut-être un opposant qui la ki qui bénéficié woon ci ci confiance su population yi et jusqu'à présent parce que moom moo mës a gagné foofu depuis deux mille donc loolu mooy incohérence bi am léegi le président de la république mag son excellence Macky Sall ñëw ne incohérence boobu diggoon na ko man ba mu koy wax maa ngi toog hmm. c'était en deux mille onze ba mu ñëwee di jaare si Malick Ba campagne boobu en 2011. Mm. nekkagul sax président. parce mm-hmm. que man bokk daa ñuy dugal APR fii si département bu Tëngéej. bi ñu ñëwee bi muy jàll si Malick Ba fa lañ fekkoon l'ancien ministre sax euh, Cheikh Tidiane Gadio. Mm. fa lañ ko fekk jour boobu kal président bi wax mu ne lii xale bi deewee nii doon di xeex li dul dëgg ba ñu rey la si. Mm. ah lii de wax fa dëgg yàlla askan bu ko bu ko njiit di teg askanam njiit loolu war nañ ko xoolaan man de bis bu ma yàlla joxee nii boppi réew mi. lii nii dinaa ko corriger parce que ku xool ni ñuy caxat caxatee Sangalkam nii loo xamante ne nii si commencement ba cent quatre vingt quinze kilomètres carré wala woon ñu réduire la jusqu'à nga nekk un kilomètre carré vraiment c'est pas c'est pas sérieux te man je des des des des des communes viables boobu boobu Macky Sall waxagul sax waxu acte trois de la décentralisation parce que yorgul nguur mhm. nga xam ni kon Macky Sall yàgg na am un programme bien établi pour faire avancer ce pays bi ñu ñëw ba acte trois bi ñu am yàlla jox ko bopp réew mi acte trois bi am mais mu ne moom il veut des communes compétitives et viables donc communes yooyu compétitives et viable mais kam ne peut pas toujours rester avec un kilomètre carré de de territoire et vouloir être une commune compétitive et viable hmm. donc dañ ko delloo moom suuf yee mu moomoon yi ñu jëlee woon ci moom dañ ko ko delloo. c'est ça qui a été à l'origine li gars yi di wax naan redécoupage yi man leen y a pas eu de redécoupage c'est une correction d'une injustice territoriale loolu moom d'accord léegi tey njeexital yan la mun a am ci Tëngéej euh, euh, nee nga du redécoupage coppite yi ñu indi ban njeexital la mun a am ci Tëngéej mi ñuy waxtaanee tey waaw xam nga côté boobu ñuy waxtaanee côté boobu sa c'est toujours dans le département de Rufisque mhm. waaw tey jii Sangalkam a toujours a été un arrondissement ñu jël titre arrondissement bi affecté ko beneen commune te jii dellowaat nañ ko titre arrondissement d' abord dellowaat ko suuf ji mu moomoon d' abord ça permettra à cette commune là d' être beaucoup plus viable ensuite la mu daan joué comme rôle ba ñuy détaché chef d' état civil bu Tëngéej di ko indi foofu si commune notoriale bu Sangalkam loolu mu daan joué comme rôle mu continuer ko joué comme rôle autour de ces communes qui qui yi ko yi mu yi mu gox boobu benn ñaareel bi euh, mooy la ville de euh, la commune de Diamniadio xam nga Diamniadio est maintenant un arrondissement te Diamniadio ku xam-xam ni le plus gros investissement pratiquement dans la région de Dakar mm. dans le cadre du PSE c'est dans le département de Rufisque avec le pôle urbain de Diamniadio mm. qui un pôle aujourd'hui nga xamante ni vraiment euh, dafa indi koom bu am solo ci zone boobu ñu koy sant encore une fois son excellence le président Macky Sall effort yooyu mu def ak euh, dépense yooyu mu def pour mën a transformer cette zone le pôle urbain de Diamniadio pratiquement toutes les plus grandes infrastructures aujourd'hui à Dakar moom moo ko abrité donc euh, vraiment nous en tey di ñaan yàlla aussi d'autres investissements Euh, ñu topp si. Mhm. maa ngi bu ñu ñëwee nag. Mhm. Euh, ci ci Tëngéej. Mhm. parce que loolu ci département bi mais bu ñu ñëwee nag ci ci ville bi. waaw xam nga yow da nga wax redécoupage. man la redécoupage amul. injustice correction d'une injustice territoriale moo am. expliquer naa la lan ak nan la demee. ndax xam nga taarix dafa am solo nit am ko xam ko. dëgg la dëkk mënuloo ci wax te xamuloo cosaan ba. gis nga man mii di wax ak yow. bu ñu mësaan a jugee fii man maa ngi dëkkoon Nimzaat laa Gedda laa juddoo. Mm. Hmm? man sama papa ba moris Guèye di dindi suuf di defar euh, canal bi mon père est né à Rufisque en 1942 bi Maurice Guèye di dindi kanaal bi seen kër si kaw kanaal boobu la nekkoon. Mm. ñu indi ko Nimzaat n'est-ce mm-hmm. sama kër maam gu magga moom jotuñu ko woon laal mu ngi des gendal ba léegi. ñu juddoo màggee Nimzaat mais Fass laa la laa defee sama lépp bi may am juróom-ñaari at ba léegi maa ngi Fass mu doon euh, dëkkuwaay yoo xamante ne nii am na lu bare bare bare bare luñu ñu manqué comme infrastructure te loolu lépp manque de cohésion euh, ak manque de portée yenn plaidoyer yi zone yi euh, ak quartier yi moo tax gis nga redécoupage boobu ma lay wax ne la lu ministre Omar Gueye man de je vois que ni logique la suivre ñun ñuy dëkk ñun ñi nga xamante ni ñoo juddoo fi màggee fii yaroo fi xam fi bu ñu mësaan a dem ñun ànd ak suñuy bàyyi dem ci tool yo bay ñibbisi souvent mag ñi dañ leen mag ñi xale yee leen daan jiitu ndax mag ñi xale yi ñoo leen daan jiitu ñun bu ñu mësaan a ñëw boo si côté fii tey jaxaay nekk. Hmm. Hmm, ñu koy wax côté almadi yi côté sédiment bi foofu foofu ak dégg woon ñun foofu lañ daan sangoo ba pare soo ko dox ñëwaat soo ko ñëw dox ci dugg ci biir dëkk bi est-ce que comprendre nga bu baax li la mm-hmm. moo tax nit booy wax am na loo boo koy wax day fekk nga nga xam taarix li xam cosaan li mm-hmm. daaw bi ñu ñëwee ci assez bi may dem di xool euh, les gars de la cypresse là ak inondation yi mais dama ne leen man j'ai été très clair avec eux mm-hmm. dama ne leen yéen dëkk boo fay jënd suuf ba ab société immobilière di la fa proposé suuf da ngay xool mag yi dëkk ba nga laaj leen lii lan la woon ndax dañ naan dox du bàyyi yoonam ñun fii dañ fi daan sangu bi ñuy nekk xale dañuy gën a doon ay booy boobu ay sept lañu am dañ fi daan sangu ndax da fees del del del bu nawet mosaan a jot da nga daan gis bu nawet bi jàllee sax ndox mi day des nest pas nag yi fa la ñuy ñëwee naan si ñëw fanaan si terrain Ndefane terrain u HLM bi. Mhm. moom la moo tax mu looloo indi turu ndeefaan bi. Hmm. ndax ndeef gi daan mag ñi daan defaree ànd yi. Mhm. di lakkee ànd yi. Mhm. ak euh, ndaa yi foofu lañ ko daan wutee. moom moo indi tur mooy ndeefaan boobu. ah kon foofu mën na leen fii ngeen dëkk yoonu ndox la maintenant li leen ci mën a dimbali dëgg-dëgg mooy investissement yu mag a mag a a mag te investissement yooyu ñi war a jiitu mooy société immobilière moo leen jaay suuf kooku moo leen waroon defaral d' abord assainissement parce que moom xam na suuf si nan la mel josé na suuf si xam nab bi niveau de nab bi fan la toll donc ñoom ñoo leen waroon a fa euh, wutal réseau d' assainissement viable ba lii mën a bañ am mhm. alors sànq yaa ngi dévoilé sa casquette politique euh, nga bokk tey euh, Tëngéej maa ngi koy wax sànq nekk na genre grenier électoral nit ñi fa yeewoo macha allah bari nañu euh, est-ce que gox bi tey attan na population wam euh, ci am-am ak ci suqaliku. waaw xam nga Tëngéej lu dañuy ñaan yàlla population bi gën a yokk. attan ko lool sax. Mm. alhamdulilahi rabbil alamin Euh, yaa ngi wax grenier électoral fii on a commencé à voter à Rufisque en mille huit cent quarante huit xam nga kon loolu yàgg na. Mm. Hmm? c'est-à-dire euh, man dama mës toog ak maître Ndeye Jacques Diop mu ne souvent les mu ne ma les hommes d'État Tëngéej moo nekk seen ville test souvent ki gagne Rufisque gagne le Sénégal. Mm. parce que c'est un bouclier électoral d'abord boo xamante ni souvent fi ñuy fi ñuy fi ñuy jëm rek fa la population Sénégal yëpp di dem en général moo tax mu solo gis nit gëj Tëngéej te du dem ci ci du am ndam je me rappelle en 2012 man j'étais le chargé des élections de la coalition Macky 2012 bi may collecter les résultats je vu que ni ñun vraiment euh, ñoo gagné pratiquement tous les centres de vote man boobu avec le doyen Omer que je salue au passage moom moo nekkoon Demba Diallo c'était le coordonnateur de la coalition mais c'est Omer notre qui était notre doyen et qui avait vraiment moom porté woon pratiquement le combat de mettre en place le président Macky Sall à partir des voies de Rufisque sur à l'institution nationale. Mm-hmm. yàlla dogal bi ñu ma man ne ko doyen man de je vois que ni les de notre côté mu ne ma si c'est ainsi kon mën sant xam ne nii. Euh, bu Macky Sall génnul premier tour it Abdoulaye du génn premier tour. Hmm. si la ñu demee vingt euh, si si la ñu demee au second tour et Tëngéej kese moo nekk dans tout le Sénégal dans tout le Sénégal où ces trois communes d'arrondissement ont été gagnées par la coalition Macky 2012. Hmm. ak loolu c'est seulement le Rufisque le département de Rufisque a été le seul département dans tout le Sénégal où ces trois communes d'arrondissement ont été gagnées par la coalition Macky Euh, que Benoît Sambou était le chargé des élections de la coalition mën na mën na ko mun na ko mën na la ko wax. Mhm. gox boobu politique yi dañ koy faral di euh, jox bopp bu baax a baax ndax wax nañ ko sànq grenier électoral la bëri na lool tey ñoo xam ni fa la ñuy nattee seen bopp ak peut-être seen chance su gañee est-ce que mhm. politique yi ñu ngi leen di bàyyi xel ci régime yi fi jot a jaar ndax euh, loolu moom du secret Tëngéej waroon na weesu fi mu nekk te itam gox bi màgg na bu ma lay laaj ndax àttan na ko mooy est-ce que tey waa Tëngéej yi ñu yittewoo yépp Tëngéej mën na leen koo jox ci wàllu infrastructure ci yeneen ak yeneen yoo xam ni dafa am solo lool ci dundu doomu aadama est-ce que tey politique yi bu nu campagne ba noppi euh, dalee ko ci sa président Macky Sall mi jiitee seen parti APR est-ce que euh, la ñu warloo ak Tëngéej euh, selon li dëkk bi mérité taxawee nañu ko. waaw xam nga soxna si madame Kane mm-hmm. wax jooju tontu ci dina yomb lool ndax nee la le plus gros investissement. bi Macky Sall def dans le cadre du PSE c' est le pôle urbain de Diamniadio mu gën a ne faa nga bokk c' est plus de milliards d' investissement hmm? kon Macky Sall bàyyi na xel département bu Tëngéej bu ñu ñëwaatee ñu xool par exemple tey jii sur la situation qui prévaut actuellement à Rufisque benn bretelle bii mooy mooy mooy mooy boulevard bii mooy Maurice yi moom lañ mës am mm-hmm. le ministre Mansour Faye est passé à pour euh, ñu def ko deux fois deux voies ah? tey ji MEDIS bi daan defar médicaments yi tu as vu le, la convention que l'État a signée avec euh, les, les les autorités euh, de ce domaine dans ce domaine pour que ñu mën a mettre ñu mën a démarrer waat ay activités am y a y beaucoup de choses que le président mu ngi koy def à risque tey boo xoolee bi ñu ñëwee en 2016 avec le conseil des ministres décentralisés. Mm. Mais beaucoup de gens pensaient que ce sera soit à Pékin ou Guédiawaye, mm. si ce n'est pas Dakar. Il y même des responsables du parti qui n'osaient même pas penser à Rufisque. Mais le président a dit, tiens, moi, le conseil de Dakar, ce sera à Rufisque. Mm. Oui. kooku kon xam nga bàyyi na xel Rufisque. maintenant li ñu koy ñaan mooy mu gën a dooleel doomi Tëngéej ji jox leen ay poste de responsabilité parce que doomi dëkk mu mën a defar dëkk. dëkk boo ci juddoo yàlla dogal nga jàngee fa yaroo fa say bàyyi jo soo jugee fa nekk fay yow tey jii lépp loo am comme responsabilité de gox boobu nga koy delloo. Hmm. tey moi je demande solennellement au président Macky Sall de prendre en compte encore une fois les préoccupations des cadres du département de Rufisque parce que les cadres aussi ñoom ñoo mën a yor yenn poste de responsabilité yi poste ministériel yi poste de direction yi mën a gérer yenn préoccupation population yi ensuite j'ai vu que il y a la Promoville à Rufisque mm. c'est le président Macky Sall il y a le PACASEN avec la clôture des murs des écoles les murs des stades la confection de certaines routes tout ça c'est le PACASEN il y a la CEL la contribution économique locale tey jii bu njëkkoon Sococim ña ka daan ña sa daan am patente mooy commune ba mu nekk mooy commune est ba ak la commune de mairie ville mais maintenant Rufisque Nord sax da ciy am loolu c'est la CER c'est la contribution économique locale moom la maire yi di wax la xorom maanaam mais kon président ak les fonds de dotation qui sont passés de pratiquement de am nañ une augmentation de plus de soixante quinze pour cent hmm. donc kooku il est en train d'appuyer les communes de Rufisque mais xam nga dëkk aussi waa dëkk baa defar nit du jóge sa àll ba ñëw di defaral kenn ab dëkk. Hmm. te euh, lu lu sotti lu ne dañ ko waxtaanee ba pare cest dire il faut qu'il encore une euh, plus de, euh, de de de de d'approche inclusive entre euh, l'administration et les administrés. Mm. c'est-à-dire les maires soient beaucoup plus proches des populations. di bañ a wut des contournements des raccourcis yu passé par la voie légale c'est ça parce que le président bi mu ñëwee avec l'acte 3 de la décentralisation de jël gëdd jox ko le conseil de quartier mm. les de quartier c'est les passerelles entre les maires et les populations dans un quartier te jii tout maire bu bëgg a liggéey aussi dans un quartier da nga war a jaar naturellement par le conseil de quartier mm. maintenant nag na loo xamante ne c'est des manquements mais am na aussi des des de des yu baax mais xam nga yàq. Hmm. dafa yàgg tëngéej. yàq. Hmm. dafa yàgg tëngéej. ban xeetu yàq. maanaam wax lu dul dëgg. Hmm. waaw gis nit am njéene ju baax ñu fexe nga gàkkal. gis nga Baye Jacques looloo ko daloon ci suuf si ba mu ko bëggee jox waa doomi tëngéej. nee naa la quatre vingt cinq pour cent nit yi fa dëkk ils ne sont pas des Rufisquois de souche. te pourtant Baye Sall dana woon les terres au Rufisque d'abord tey jii j'ai vu un projet boo xamante ni quand je l'ai vu wallaay j'étais ébahi muy le carré d'or c'est le marché central de Rufisque ñun ba ñu nekkee xale ba ñu bu daan dem géej marché lañu daan jaar bu ñu demee neeraani ji ba pare neeraani ji bu bu bu gaal yi teeree jox ñu suñu nar bu ñu jotee suñu nar dañu daan dem marché dem jaayi ka yi hmm. marché boobu na mu mel ba léegi noonu la mel dara soppeeku ci da ngay xool da ngay taxaw sax di gis asamaan si yaa le maire de l'Est parce que marché boobu ci territoire communal bu Est la le maire de l'Est euh, Boubacar Albendoy pour ne pas le citer mais am un projet de quatre-vingt-quatorze milliards muy carré d'or defaraat marché bi mu nekk marché de dernière génération ak trois pôles yo trois trois euh, euh, kii euh, de de def ko marché ba pare ci kanamam mais daf koy def des tours trois tours yoo xamante ni de vingt étages ah, am un espace pour que des bateaux puissent accoster des des des des des, des bateaux de moyenne de dimension mais yooyu projet mais nan la tey jii nit ñi koy gàkkal yépp c'est que ñoom seen i intérêt du du du du seen intérêt leneen la n'est-ce pas. Mm-hmm. mais projet bu mel noonu tey bu ko Thiès jotoon malheureusement Thiès amul géej. Mm. mais tey jii bu ko yeneen commune jotoon dañ koy téye fexe ba taxawal ko mu am. d'accord parce que marché dafa bokk ci lii taarix taarixu Tëngéej parce que Tëngéej jënd ak jaay la te foofu ñu koy def foofu moo nekkoon port bu portu Tëngéej foofu la nekkoon les plus grands commerçants du Sénégal foof lañ daan jaar. Mm-hmm. pour ñu jël seen i marchandises di ko yóbbu àll dans l'Hexagone. Mm-hmm. alors ëllëgu Tëngéej itam xam naa ne fa la ñuy jeexale ñu bari notamment ay spécialistes de l'environnement ñi ngi ciy am jiixi jaaxa ndax érosion côtière bi sonal na leen lool euh, tey lan la waa dëkk bi euh, nekk di def wala ñu koy xalaat ngir xëy na muccal Tëngéej gox yu bari tey euh, daanaka géej gi lekk na ko waaw xam nga érosion côtière moom il faut des digues de protection hmm. mais au-delà de ça il y a Rufisque offshore profond il y a Rufisque offshore kii boo boo xamante ne nii ci ci pétrole bi la jëm. Mhm. te des multinationales vont venir à Rufisque investir c'est sûr et certain qu'il y aura des aérodromes à Rufisque parce que ces multinationales là bu ñuy dugal seen xaalis dañ koy dugal si su leer il faut une réorganisation intégrale de l'administration locale surtout à Rufisque ba pare ñu jël ñi nga xamante ne am nañ kenn ku nekk domaine ba nga mënee ñu confier le ko malgré ce ne sont pas les diplômes qui font la personne sincèrement parce que tu peux être diplômé dans un domaine bien précis et être pire dans ce domaine loolu yàlla moo koy dawal nit da ngay am une sincérité am ngor am yaqin man du may jug di liggéey nit yee tax mais quand la politique te sert d'ascension sociale là tu ne fais plus de la politique non mais c'est autre chose par respect à à tes auditeurs et à du ma tudd sax ñooñu yan genre lan lañ. Hmm. waaw mais gis nga quand on est né dans une ville. Hmm. Euh, ville boobu premier souffle de vie bi nga am ci àdduna ville boobu moo la ko jëkk a jox. ah nga ci ville boobu mu nekk ville bu am maanaa ci ci ci àdduna. parce que waxuma sax ci Sénégal ne ci àdduna. mu def def def va inculquer ay valeur ak ay vertu yoo xamante ni fépp foo mës a dem ci àdduna jàng yóbbu la fa wala liggéey yóbbu la fa yóbbu la fa mosuloo bokk ci ñuy mujjee kon ville boobu tey da nga ko boo boo dee gor dëgg da nga ko war a delloo njukkal. Mm. delloo ko njukkal nag mooy fexe nu mu avancé Tëngéej tey dafa war a dem ca kanam mais pour mu dem ca kanam la Mbaye Jacques waxoon les terres au refuge quoi d' abord. mais je dis bien que les mairies au Rufisque d'abord. Mm. parce que les instances de décision tant que de véritables Rufisque géré wuñu ko les choses ne vont jamais bouger ça c'est sûr. Hmm. waaw léegi doo ñu wax ku moom wax ji rek. non du ma nee diw moo woon wax ji parce que ñi fi ñi ko yor nii wax fa dëgg yàlla fi lañ juddoo ñi ko yor moom. Hmm. fii la ñu si dëkk bi hmm. waaw. du ma tudd nag tur mais ñi fi nekk maire yëpp. Hmm. ci commune yi ba ci maire ville bi ñoom yëpp fii lañ dëkk. kon luy problème bi. c'est-à-dire il faut une gestion participative. maanaam ñu boole ci nit ñeneen ñi. ñu xam ni yow mii compétence lii la doomi dëkk bi nga. Hmm. bu ñu amee lii moo lañ koy jox te ko sa loxo nga doxal loolu mooy ànd loolu mooy ànd pour di jariñu dëkk du nga dëkk. Mbaaru dafa am yow lu ñu la xañ personnellement. non non. gis nga man. Hmm. Euh, am na loo xamante ne bu ñu ma ko naree xañ sax maa koy jëlee ji sama bopp. Hmm. ndaxte man risque au dessus de tout. à mes kon waxaloo sa bopp. déedéet leer na ba fa dëgg yàlla. Hmm. jëf Isma Diagne amoon nañu mbégte lool dalal la ci waxtaan wi tey euh, ñeel Tëngéej ak euh, xëy na njeexital yi découpage bi nar a am euh, ci moom wala coppite yi correction injustice comme ni nga ko waxee ak itam taarixu Tëngéej ndax jot nañ cee waxtaan sax ak maître Mbaye Jacques Diop moom mu ngay wax waaye ni ma hmm. koy waxee rek keneen koo dajeel dana la wax lu la keneen mosta wax kon yokkute la te itam bu ñu sañoon Sénégal yépp taarix bi dafay daj ndax démb a tax ñu naan tey ñu ngi lay gërëm lool Isma Diagne jàngalekat nga professeur nekk itam njiital lycée les majors bu Mbaaw amoon na nañu mbégte lool dalal la ci démb ak tey jërëjëf. jërëjëf soxna si kan maa ngi lay gërëm yow aussi di gërëm seen auditeur mhm. di gërëm seen rajo bi di leen ñaanal yàlla aussi yàlla na leen yàlla gën a taxaw waroon commencé si jaale leen seen mbokk waa leeral yi mhm. wàcc liggéey ci tournée économique président bi ñoom it ci liggéey lañ nekkoon yàlla na leen yàlla xaare ajana di